lu waral situation bi bizarre problème poche benn problème poche je pense que dafa mel ni benn genre wax nga xam ne chaque année day am chaque année loolu mënuñu comprendre parce que pas dañ naan ministre de l'enseignement supérieur ministre de l'enseignement supérieur or que du loolu ministre de l'enseignement supérieur am na partie bi nga xam ne wàllu bourse yi parti bi yore ñoom def nañ seen ay état ba mais suñ ko defee benn état boobu wax la yaaru koom-koom noonu moo a jox jox a fay étudiants yi mais comme que au niveau de de la direction des wax nañu maanaam def nañ seen ay état donc mën nañu wax ne problème yi au ministère des finances je pense que ñun li ñu recevoir ñu ne Sénégal maanaam amul solvable na ko liquide maanaam amul amul amul benn entrave maanaam benn benn benn problème pour fay maanaam ay ay engagement ay détam wala yooyu noonu fay seen étudiants yi seen bourse loolu jaaxal nañu trop te ñu compte ko ñu jusqu'au bout parce que lii nii suñu maanaam mooy ñuy parce que étudiant la essentiel étudiant nga ba am plus de vingt cinq ans jàng am plus de ñaar fukki at ak juróom-ñett dépassé nga jàng xam dépassé nga jàng métier sa su am nga am nga sa di la jàppale à chaque fois à chaque fois nga dem ba di la jàppale sa buuti la mën a mu néew mu bëri moom nga am ak sa ay kay ngay jàng ba suñu ba État Sénégal mënu mënu fay maanaam dañu ñaan seen suuf rek def seen problème une bonne fois à chaque fois gars yi di si topp mujj gi dañuy dem ba affaire dañu ko banaliser problème boobu noonu or que ça c' est pas normal dans un pays bu ñuy wax ne le Sénégal émergent et je pense que Macky Sall si côté temps bu fi nekkee problème bu bourse yi mu ñëw ba léegi ba nekk si problème bu bu persisté donc bu ma ko waxee il faut que Macky Sall si boppam mu jël ay responsabilités si lii. ak chef de chef de gouvernement chef de gouvernement mouvement bi mooy gis naa seen solution amul benn solution wala su fekkee ne ngeen gis benn solution lu jaay doon ngay jaay partout pour que gars yi dégg la il faut nga wàcc si télé bi dañu lii nii maanaam neexuñu à chaque fois suñu moroom yi même suñu wàccu télé bi si yenn moroom yi wàcc si télé bi dafa neexuñu ñu bëggoon nañu jàng parce que xam-xam mooy xam-xam bien vrai que am ay problème bëri na mais gis nañu am na ay amélioration gars yi ngi kii lu ko nuyee di loolu c' est vital maanaam affaire dund la étudiant mën nga jàpp ne bourse bi nii amul ko njëriñ mais dafa amul solo parce que si lay lekk si lay naan. si lay faj si lay jënd ay kuréel ku dem plus de 25 ans mën nga toog di woo sa kër sama ak sa yaay di leen wax ay waxu ay waxu yónnee ma kii ak yooyu bu yàggee da ngay bu bu ko faj ay bouche ngay jàpp ba ngelaw bi yàlla la ci def waaw je après mooy naa si amoo amoo dara ñu jël au sérieux kaw parce que ñooy mama leneen loo def defoo ko sa ëllëg réew defoo dara bourse yi c' est vital wareef la étudiant joxe ko a tamit lu moo tax foofu politique yi xëcc ko ci gars yi yooyu yëpp nañ ko jël jox ko étudiants yi kenn leen dégg parce que y a des problèmes au niveau des facultés mais doo leen dégg que dañuy muñ mais bourse nga mënul muñ maanaam li nga xam ne ci ngay dund wala soo demee dans les réseaux yi ñi ngi def ngeen te tubaab parce que amuñu lu ñuy jëndee ticket ticket sensible amuñu lu ñuy jëndee loolu xam ce n'est rien trente cinq mille bourse à gérer bëriwul loolu état bi Sénégal loolu lacrymogène ñuy sànni fii chaque jour benn bu nekk vingt cinq mille lay jar ñaata lacrymogène lañ fi dóor lacrymogène noonu fay na bourse je pense que c'est ça une bonne politique maanaam ñu jël kaaw ñu jël kaaw étudiant yi au sérieux bay leen encore une fois ñu ngi métti lu ñuy naan naqaru ñaaw lii wax lu xew fii force de l'ordre yi tamit war nañu xool fu ñuy dóor ay lacrymogène doo ko dóor ci ay pavillon ñoo xam ne ay jigéen ñoo te xam nañu ay jigéen ñoom ñoo nekk te ay jigéen ñoo leen sànni ndax jigéen ñi en ñu si bëri dañu forom ñu wàcc góor ñooy wàcc lii moom wax yàlla naqari nañ torop te lii nii problème yi dañ dañ koy réglé te ñu ngi ñaan tamit responsable bi ñu dédommagé parce que am na ay matériels yu am fi yàqu mais ay seen ay ordinateur ay ordinateur mag nous pouvons eh, chaque fois le ministre de l'économie et des finances nous disent que les caisses de l'État, du Sénégal est liquide alors qu'il ne faut pas régler le problème des étudiants. Ça c'est contradictoire, ça c'est Nous voulons que ça cesse définitivement. Nous voulons percevoir, euh, nos bourses plus tard le 5. besoin de la République, monsieur, le chef, le président de la République nous dit, monsieur Marcel,